أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñoo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ba tey ñu ngi suratul baqara di tàmbalee tey aaya 248 mu nekk benn aaya bu nekk sunu kanam sunu borom subhanahu wa taala di ñu ci leeralal di ñu faram-fàcceel faram-fàcce bu leer nañ ne yonent gaa yooyu nga xam ne ñoom ñoo doon waa banu Israil sàkk woon ci seen yonent mu falal leen benn buur sunu dars buy passé gis nañ ñoom seen càkkutéef googu fan lañu mujje ci wuute gu ñu wuuteeg moom tey dars bi ñuy jël muy benn aaya bi sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ci leeral anna samwil annabi a'lamahum anna al aaya tamlikuhu llahu taala li taalut alay alayhim sunu borom subhanahu wa taala mi ngi leeral ci aaya bi nekk sunu kanam ne samwil yaakaar naa xam ngeen kan mooy samwil moo doon yenent ba li nga xam ne moom la gaa yi sàkk woon ci ñoom ne ko falal nu benn buur yenent boobu xamal na leen ne sunu borom subhanahu wa taala day taalut la fal ci yéen mu nekk seen buur pour ngeen gëm loolu am na benn màndarga benn xàmmekaay benn kéemtaan boo xam ne yàlla subhanahu wa taala moo koy def ci nguuram pour ngeen xam ko màndarga bi day nekk benn waxande an yaatiyahum taabut al maxsuub minhum benn waxande benn valise boo xam ne ñoom ñoo ko moomoon ci lañu dencoon bagage yonent yàlla Muusa ak yonent yàlla Haarun benn bis ñu fëkk ko ci ñoom comme xeex yi ni muy amee rek ci dëkk yi xam nga tey bu benn dëkk ñëwee di agresser Sénégal dañuy dugg ci dëkk bi lépp lu fi am valeur culture ñu sàcc ko loolu la loolu la loolu la américains yi def Irak lépp lu fa baaxoon instant bi dañ koo jël maanaam nit ñi buñ duggee buur yi buñ duggee ci dëkk bu ñuy jël duñu duñ jël alal ji rek mais dañuy dem am na mbir yoo xam ne ci culture dëkk ba la bokk seeni maam seeni borom xam-xam cosaan la fa dañ koy yóbbuwaale ñoom bu ñu demee yóbbu ko ci seen musée yi su ko defee nit ñi di fay di ko seetaan waxande wi ñoom ñoo ko moomoon bagage yi yonent yàlla Muusa ci la nekkoon am na sax ñu wax ne lenn ci bagage yu Yuusuf ci la nekkoon léegi nag ñu këf ko ci ñoom yóbbu ko yonent bi xamal leen ne waxande woowu mooy wane ne taaluut mooy nekk buur ci yéen lu tax ndax waxande woowu yàllaa koy delloosi ay malaaka ñoo koy jël delloosi ko su loolu amee kon yéen ñëpp na ngeen jébbulu xam ne kii yàllaa ko fal ci yéen ndax yàlla wan na leen ci moom kéemtaan guy wane ne moom mooy seen buur wa huwa ramzun nee na loolu benn màndarga la benn mbir la moo xam ne tajma'uhum moo leen war a boole ay nit sunu àndulee ba yàlla won leen kéemtaanam mu leer leen ne ci yàlla la jóge kon lu nu war a def mooy danoo war a ànd wattihaadihim mais waruñu ànd rek mais dañoo war a bennoo aussi waxande woowu day wone ni sukkandiku la lu leen di may force may leen kàttan lan lañ leen digal ci waxande bi bu yessee ci ñoom mooy bu ngeen di xeex waxande bi na nekk seen kanam ñi koy yore ñoom bu ñu xeex nan ko yor rek nekk ci kanam fekk ñooñu dina ngi nekk ci kanam armée bi day jàll loolu lañu leen jox ci màndarga buy wane ne taalut moom mooy nekk seen buur nee na waxande wi làq na bagage yi Muusa ak waa kër Haaroon ñu bari wax nañ li ci nekk waaye ku fekkewul moom yamal rek ci li yàlla wax mooy ay bagage a ci nekk ay bagage a ci nekk ay kuddoo ci nekk ak ay paakaa ci nekk ay àlluwe ci nekk ak yooyu yëpp boroom xam-xam yi dañ ciy dugg yenn saa yi am na sax ñu ne yetu Muusa bi nga xam ne moom la dóoroon géej gi xar moom la daan dugal ci géej gi mu xonq yooyu mu ngi woon ci ak ay dàllam am na ñu ne dàllam yi ngi ci woon ak kaalam amaama bu bu xaaru bu xaaruna am na ñu ne sax amoon na lekk boobu ñu tuddee mën na ak salwa en tout cas waxande waxande bi boroom xam-xam yi sax yenn saa yi dem nañ bay mesurer waxande bi nu mu toll kon du waxande bu ndaw loolu yépp pour wan leen rek ne sunu borom subhanahu wa taala su nammee dara loolu mu namm kenn mënu ci dara nguur nit ñi dañoo war a xam ne nguur yàlla moo koy joxe ñoom dëkk boobu sàkku nañ ci seen yonent ne ko falal nu buur waaye mbetteel ndeysaan mbetteel mu ngi mel ne waa Sénégal rek xaaru woon Macky Sall faru Sénégal wala ñëpp kenn xaarul woon loolu élection yi passé kenn xaarul woon Macky Sall mais yàlla moo yor nguur moo tax mu tuddee ko saar tuddee ko suuratul mulk yemu ci mais ci biir alxuraan da ngay fekk yàlla mu ne qulillahumma malikal mulk tuutil mulk man tasha allahu akbar suñ ne woon qulillahumma mali malikal mulk yàlla malikal mulk mooy buuru buur yi su yemoon foofu rek doy na waaye mu ne tuutil mulka man tasha maay jox nguur ku ma neex maay teddal ku ma neex maay teddadil ku ma neex te yàlla ay mbiram chaque jour daf koy wane fu nit ñi dul yeewoo bu fekkee ci Sénégal nekk misaal yi joxe ci misaal day day yomb nit ñi dégg yàlla moo fekk benn waay boo xam ne xeex na ba sonn pour jot nguur gars yi di ko xañ yàlla jox ko mooy wallaay waat ñaata at la opposé 26 ans muy xeex mu dem ba découragé dim dem France toog gaa yi dem jëli ko ne ko ñëwal ne non ñëwal rek mu ñëw yàlla fal ko wala ci jamono joo xam ne yaakaar kenn yaakaaroon mu falu moom it mu ñëw toog mu bëgg a ngoy ci yëf yi mu bëgg cee ngoy mu jaral ko lu nekk yàlla faxasaat loxoom kon mbir yàllaa ko yore yàlla moo ko yore fokk nit ñi xam loolu peuple bi dañu ne seen yonent falal nu buur ib aslana malik nuqaatil fi sabilillah falal nu buur ñu xeex ci yoonu yàlla yonent bi ñëw ne leen ah diw de la yàlla tànn moo nekk seen buur ñu ne ko diw loolu mënul nekk wala yow kay boo ñëwee ci yonent lu toll na yonent nga ñëw ne ko bi waxal mu wax lan moo la waroon waaye doomu aadama yi ñoom mel gis nga Moussa bi gaa yi reyee nit ñëw ne ko ñun de dañoo rey kenn dañu bëgg xam ku ko rey mu ne inna allah yaamurukum an tasbahu baqara yàlla nee na ngeen rey nag lan moo waroon ñooñu yéen a ñëw ci yonent laaj mu tont lu waroon dem rek mais ñu nekk fanaan non nag bu mel na nag ndax ñun nag yi dañoo bëri kenn xamul ban mbir mi mbir mi mujje coûté leen cher moo tax yonent bi saa salaam day wax ci ne bu ma leen waxee dara dem leen ngeen def ko su ma teree bàyyi leen bàyyi leen laaj laaj bu bëri nit ñi nag ñoo bëgg laajte nit ñi nit ñi moo yor nit moo yor nature lool nit mooy chaque jour mooy bëgg bëgg lu yomb lu metti rek nit ñi bëgguñu lu yomb wala yàlla lu mu wax wa ma min dabatin fil ard illa ala allahi risquha yàlla nee nag waxul nit de dana lépp luy dukkat luy noy man maa lay jox nga lekk nit ñi ne déedéet waaye yow yàlla noo mën a nekkee asamaan bàyyi ñu ñu liggéey yàlla ne dem leen moo tax fi mu ne gis nga ñu wala ñuy lekk rek alko waaye xoolal rab yi nga xam ne dañoo gëm ne yàllaa leen di jox ñu lekk xar mi mu kan ci yéen xaram mooy liggéey xar mi day tëdd fu mu tëdd nga xëy mu ne la merde indi ngooñ mi yow da nga soof nga génne dem jëndi mu lekk ba pare ne la anan sama ndox ngeen yéen xar mi naan na ñu may mu xëy dimanche ne la gëj naa sangu sanga ma tey mooy yow yaa koy defal lépp moom mu ngi toog benn place rek di la xool picc bi noonu la lépp luy dund lu dul nit nit mi ne yàlla doo ma dundal maa dundal sama bopp moom rek moo sonn moo tax yonent bi ne bu ngeen gëmoon yàlla dëgg dëgg nu picc yi gëmee yàlla kon yàlla dina leen wërsëgal comme nu mu wërsëgalee picc yi est-ce que picc yaa ngi grève ndax carburant dafa seer pourtant dañuy naaw de ah lu tax grève nu parce que yàlla moo leen yore wa ma min dabbatin fil ard illa ala allahi rizquha xool leen gaynde lan lay lekk ñax fi muy lekk fi mu nekk yàpp fi mu nekk nii genn wàll gi ci ñun ñëpp tabaski lañ gëj a lekk yàpp genn wàll gi ci ñun ah fanu tabaski yi lekk nga yàpp ba suur mais temps yi commencé nga waan kor xiif yàpp gaynde nag bis bu nekk day lekk yàpp te làpp yàpp bu bees lay lekk te bu xëyee yàlla jox ko mu lekk te yenn saa yi nga gis gaynde bu dund cinquante ans te yàpp lay lekk te yàpp dafa cher yéen xam ngeen ko wala waaw parce que yàlla moo ko wakkil yàlla da koy jox mu lekk te liggéeyul fen te mi ngi lekk mi ngi naan boo demee ci génn ci géej gi nga gis fa benn balañ boo xam ne boo ko doon mesurer di ko tàllal léegi mu dem fii ba stade ba noonu la toll ci guddaay noonu la toll ci yaatuwaay te kooku xam ngeen ne du lekk kilo mburu te mu ngi lekk kon nit ñi dañoo war a xam ne yàlla su waxee loolu la yàlla du koo xam ne su waxee waxam day tegg kon yàlla bu waxee jarul discuter xoolal ñii li leen war a lii lépp lan moo leen ko indil mooy di discuter ak seen yonent loolu mooy wax suñu wax kon aaya bi la ñuy jël mbokk yi ñu jël nas bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين من وقال لهم وخنا لين وقال لهم وخنا لين كان نبيهم سين يونان يونان بي نون لا تودو شمويل نون لا يونان بي تود يونان با نينا لين inna ayata mulkihi kéemtaan màndarga buy wane ne anna allaha taala mallakahu aleykum kéemtaan gi wane ne yàlla fal na ko seen kaw yàlla xoolul askanam déedéet am na ñoo xam ne tey ci ci àddina bi ci Sénégal gi nu nekk da ngay dem dëkk ñu ne ñu ne non non non non non non kii kii du fi jiite pourquoi non kii xoolal santam bi am na ci dëkk yooyu dem santu sàngam boo ko santee rek doo fa nekk buur doo fa nekk imaam yow daal ñu tekkiwul dara la ñuy tekk foofu la ñuy dëkk fa même ñooñu bu fekkoon ne seen maam noonu lañ mel léegi jeunes yi wala ndaw yi fa nekk sët yi jàng nañ wala nangam nangam nañ déedéet moom kay nit ñi moom du ñu changé loolu du diine amuñu fenn fu ñu jàng ci islam. yàlla subhaanahu wa taala mu ne ku sant sàng sant sàngam doo jiite wala ku bokk ci xeetu sàngam doo jiite waroo nekk buur waroo nekk imaam waroo nekk sëriñ waroo nekk waroo waroo waroo wala kenn warulaa may jabar loolu fan lañ ko jàngee danañ dem sax ba ku mel noonu bu deewee kenn du ko suul ci armeel yi demoon nañ benn dëkk boo xam ne ku fa dee ci guy gi lañ lay dugal guy benn guy gu rëy moo fa nekk am pax ku dee ci fam ci ci ci dë- ci dëkk bi am na fooy bokk rek ci guy gi lañ lay dugal ba léegi nii loolu mu ngi Sénégal boo ñëwee ñu ne la guy gaa ngi nii xam nga loolu garaaw na loolu nag amul fenn kii yàlla moo ko tànn moo tax seen yonent ne leen wa qaala lahum nabiyuhum seen yonent ne leen inna aayata mulkihi kéemtaan buy wane ne yàllaa ko tànn du yéen yéen a ko tànn mais yàlla moo ko tànn yàlla ku mu tànn war naa doy wala warul doy yaakaar naa doomu aadama yi bu leen yàlla tànnalee war na doy yéen yéen a ñëw ci yonent yonent bi ngeen wax ko seen soxla mu joxoñ leen benn waay lu ci waroon mooy samina waataana mais déedéet mu ne leen inna ayata mulkihi kéemtaan buy wane ne yàllaa ko tànn moo ko fal seen kaw ay yaatiyakumu taabuut mooy seen waxande woowu ak taabuut mooy waxande mooy valise sunduqun benn kees la goo xam ne xachabi bant lañ ko defaree fihi baqiyatu min asaari ali Musa wa ala Harun waxande gi li ci nekk boroom xam-xam yi wax nañ ci waxande gi nag wax yoo xam ne daanaka sa yaram day daw nan la ñaata ñaata mètre la ñaata kilo la ñaata ñaata ñaata ñaata lu nekk ñu wax ko ci wax naa leen sànq li ñu wax ci ay bagages yi ci nekk waaye li am importance mooy chaque jour jullit bi jéem a yem fi yàlla yem benn waxande la benn waxande la bu fekkoon ne tonnage waxande bi dina am na importance kon yàlla dina ko wax bu fekkoon ne waxande bi ñaata guddaay bi ñaata la am na importance kon yàlla dinañu ko wax chaque jour dafa am mbir yoo xam ne day amal jullit njëriñ am mbir yoo xam ne du ko amal njëriñ yenn saa ngi dégg rek arche fan la nekk soo ko xamee ban njëriñ la lay am rek ah ajjana fan la nekk safara fan la nekk suñ la ne mi ngi kaw asamaan léegi après ah benn waay ñëw na fekk imaam Ahmad mu toog di jàngale waa ji ne imaam Ahmad man de xam naa su may julli fan laay jublu lu nekk mu wax ko su may def nangam xam naa lu may def waaye daal bu may sangu ma demee ci géej gi di sangu xawma fu may jublu mu ne ko li gën mooy nga jublu fi nga summi say yére balaa ñu koy sàcc nga ñibbee yaramu neen waaw loolu gën li gën mooy nga nga sa kanam bi nga xool fi nga teg sa yére waaw xam nga wax na ko dëgg imaginel bu fa nekkoon naan ko da ngaa war a jublu fële wala da nga loolu amul benn njëriñ kon am na yoo xam ne jarut a sonn suñu borom ci alquran fii ñii ñu toll ci aaya bi suñu borom lu mu wax mooy ay yaatiyakum mu ñëw ci yéen attaabuutu waxande bi ñu ne waxande bi waxande la bant la li ci nekk ci biir mooy ay bagage yu Muusa bàyyi woon ak Haarun seeni bagage lañ jëloon def ko ci waxande woowu waaye waxande googu bokk na ci li ci nekk fii nekk na ci sakinatun dal tumaninatul qalb wa huduun nafs waxande wi bokk na ci li ci nekk mooy luy dalal xel di teeyal bakkan loolu nu mun nekkee waxande woo xam ne day dalal xel di teeyal bakkan loolu nu mun nekkee mbokk yi ah loolu nu mu nekke waxande bi nan lay dalale xel fii sakina yàlla moo ko wax ne waxande bi day dalal xel nu muy dalale xel ah malaaka yi wàcc mu jóge ci asamaan keneen lu tax waxande wi di dalal xel di teyal bakkan lu tax ah dafa am lu am solo keneen mais waxande yi bagaasul kan la ci nekk ah yonent tey boo ñëw ñu ne la néeg bi bagaasu sëñ Tuubaa ci nekk ñëw bi la ko yow nooy def fii lalu alaaji Malick la moo fi doon tëdd nga tëdd ci looy looy sànde nga waxande woo xam ne sunu borom subhanahu wa ñoom pertoon nañ ko parce que dañ ko nangu woon ci yéen yàlla ne leen te du lu ndaw malaaka yi ñoo leen koy delloosi fii sakina dal moo ci nekk dal gi mooy lan da ngay xam ne da ngay am yaqiin lii dëgg la ndekki dëgg boo ko gisee lan la yow jullit loo bëgg du dëgg kon daf lay convaincre kon sa xel day Ibrahima bu mu bëggee yàlla dëgëral nga moom dana yàlla wan ma nooy dekkile lu dee yàlla ne ko Ibrahima xanaa gëmu mu ne aha kay mais damaa bëgg sama conscience bi mu tranquille parce que yenn saa yi nit gëm ba pare jaan lu muy def day matte tey bu ñu jëloon benn jaan dindi bëñ yi ñëw teg ko fii ne la dugalal sa loxo ci gémmiñ gi dindi nañ bëñ yi sa xel lu muy def est-ce que est-ce que dëgg la est-ce que est-ce que nangam la est-ce que dindi nañ bëñ yi est-ce que dangaar gi wàññeeku na gis nga sa conscience du tranquille moo tax Ibrahima ne yàlla wan ma nooy dekkile lu dee yàlla mu ne Ibrahima xanaa gëmoo mu ne ah kay mais damaa bëgg li ma gëm mu yàlla ne ko jëlal ñeenti picc nga rey leen nga jaxase leen nga saam leen ñeenti jal nga taxaw fële picc bu nekk nga woo ko ak turam foofu tamit da ngay gis borom xam-xam yi naan bii la bii la bii la ñaan yàlla ñeenti picc la wax ñeenti picc la ban ak ban la amul importance ginaar la pittax la njóobeen la jàmbu jóob la amul importance ñeenti picc ñeenti picc lu am dunq la daal ñeent mu rey leen jaxase ko ba mu jaxasoo mu saam ko mu taxaw fële bu nekk mu woo ko boobu daal di sab yàpp yeeg dunq yi branché wu boobu naaw dem yoonam ba mu xoolee ba pare ba mu gis ni ñeenti yëpp dekki nañ lan la wax alamu anna allaha ala kulli shay'in qadir xam naa ne yàlla moo mën lépp foofu la jóge déngi déngatu moo tax bi ko yàlla ne reyal sa doom nu mu def est-ce que dute na sikki sàkkawul ngëm gi dëgër na waaw gis nga ñun ñu amul ngëm tey bu ne woon rey leen seen doom yi tabaski ku dee nga tabaski wu ma ah tabaski surtout ñu ne da nga am doom bu am car da nga rey doom bu am 40 ans tey doom bu am 40 ans ci Sénégal boo ko amee looy xalaat ci moom ah loo ci xalaat bu dee ku ngand la yaa ngi xalaat kii kii di léegi muy ni ma ci millions yi bu dee ku jàng la yaa ngi xalaat bu dee politicien la yaa ngi xalaat fu mu bokk rek yaa ngi xalaat yàlla xëy na la suba rey ko nooy def ah moo tax yàlla mun yàlla natt mun yàlla nattoo def du baax waaw yenn yi nattu la pour yàlla xool la mais bëri na doomu aadama yu yàlla nattu duñ ci génn parce que nattu dafa métti wala nattu reyal sa doom ah Ibrahima nekk kilifa nekk mag yàlla ne ko duggal néegu góor mooy xarafal nat mag yooyu yëpp Ibrahima traversé ko fan la mujj mooy wattaxaza allahu Ibrahima yàlla ne na kii sama waay la xoolal ku toll na yàlla. Ibrahima waxul ne yàlla mooy sama xarit de Ibrahima waxul loolu de déggu leen wax bi de fi mu nekk bëgg nga Macky Sall ah bëgg nga Macky Sall amul njëriñ xam nga ban moo doon am njëriñ moom mu bëgg la ci la su ko bëggoon tey du ñëw tafsir ndax du ko tal quoi heure bii mu ngi ci waaw ndeysaan gis nga. xoola yàlla nag ne man maa bëgg Ibrahim wattaxaza allahu ibrahima loolu du lu ndaw de xalilan xalil xoolal tey baat bi yàlla sax waxul sadiq mais xalil la wax kon du lu ndaw kon ibrahima li mu am kenn xamul nu mu toll te lépp lu ko waral mooy ngëm bu dëgër waxande bi li ci nekk mooy sakina sakina dal ak lan min rabbikum dal goo xam ne fan la bàyyee ko ci seen boroom mooy bu ngeen di xeex teg leen ko seen kanam ñi ko téye nañ ko téye seen kanam waaw mu ngoog wala yazaaluuna yuqaatiluuna ma baqiya taabuut feek waxande waa ngi seen kanam na ngeen yëg ne victoire bi mu ngi seen loxo ma baqiya taabuut bi ay dib feek waxande waa ngi ci seen loxo lam yablugu alayhim aduwuhum seen noon du leen gañe wa minhuma nee na ci fii ñoom ñëpp ci la ñu tàmbalee sunu borom subhanahu wa taala indil leen ndeysaan gis nga soo demee ci tafsiru gaa yi li yàlla wax ne fiihi sakina borom xam-xam yi wute nañ ci tafsir bi waaw ku nekk am nu mu ko gisee nee na li wér daal wa sahih anna taabut kanat fi ashyaun fadila min baqaya al anbiya wa atharihim fa kanat an nufus taskunu ila zalik wa tuannisu bihi wa tuqwi illa annahu saha an nabi saa sallam anna sakinata takunu mulkan kama fi hadisi muslim ndeysaan nee na boo jàngee téere yi di nga gis borom xam-xam yi wax nañ lu bari ci waxande woowu dal bi mais daal li wër mooy ay ay bagage yu des yoo xam ne ay yonent ñoo ko moomoon moom moo nekk ci ba moom moo nekk ci waxande woowu mu ne waxande bi sunu borom nee na dal moo ci nekk waaye dal goo xam ne min rabbikum ci seen borom la bàyyee ko mais nit ñi fu nu tollu tey mooy lu bàyyeekoo ci nekk ku nekk mën nañ koo jox valeur lu bàyyeekoo ci ku nekk mais lu bàyyeekoo ci yàlla nag lu bàyyeekoo ci yàlla nit ñi bariwuñ luñ koy fonk lu bàyyeekoo ci yàlla te lu bàyyeekoo ci mbindeef ak lu bàyyeekoo ci borom bi ban moo ëpp importance waxande wi ñi yàlla di waxal fii waxande wi fan la leen yàlla wax la bàyyeekoo sakinatun min rabbikum yemu ci mu ne wa baqiyatu ak loo xam ne dafa des ay traces mimma taraka alu Musa loo xam ne ñooñu Musa ñoo ko bàyyi woon xam ngeen Musa yonent la woon yàlla ko yónni ci banu Israil ci jamono joo xam ne jamono ju tar la xam ngeen ne Musa balaa muy judd histoire bi jàng ngeen ko nit ñi chaque jour war nañu xam ne bëgg-bëgg yàlla doomu aadama mënu ko téye yàlla su programme programme am kenn mënu ko téye su ngeen gisee noon yi di bañ ñu jàng alquran maanaam alquran soo ko jàngee soo ko gëmee doole ji ngay àndal kenn mënatu laa téye ci àdduna bi loolu pour ngeen xam ne dëgg la jàng leen histoire yonent bi ak saxaaba yi yeneen bi bi mu amee ñaata at la ko yàlla yónni 40 ans yeneen bi ñaata at la am dundam yëpp 63 ans mooy juróom-benn fukki at ak ñett bi mu amee ñaata at la ko yàlla yónni 40 ans kon juróom-benn fukki at ak ñett boo ci dindee 40 ans ñaataa ci des 23 ans la yonent bi woote diine ji 23 ans la yonent bi dund diine l'islam mais génnul àdduna lu lu islamisé na golf bi golf bi yépp islam di folote islam nekk ci kaw lu ko waral muy ngëm lu tax parce que alxuraan moo nekk ci kanamam alxuraan nit du ko jàng gëm ko xam ko ba pare ñu lay noot mënul nekk lu tax parce que chaque jour daf lay woon dëgg daf lay woon ne am nañu xoola firawna bi yàlla bi bi yàlla di yónni Moussa ci Firawna su ngeen doon nat Firawna ban doole la waroon yor tey puissance wala mu ëpp ko doole Firawna tey puissance États-Unis su su bëggee xeex ak benn nit benn nit bëgg a xeex ak puissance boobu fu luñ koy wax xoolal yàlla tëral programme am Firawna bu mu yëgee programme bi mooy lan dafa am ko war a judd folli ma lan la wax ku nekk góor rey leen ko ñu jàpp góor ñi rey rek dëgg léegi yàlla bu doon nit la ñu ngi rey nit ñi est-ce que kon dina ëmbaloo yaayu Moussa parce que danaan bu juddoo dañ koy rey yàlla ëmbaloo yaayu Moussa yemu ci loolu mu am doom mu ne ko dugal ko ci waxande waxande bi na ko yóbbu kër Firawna xel nangu na loolu waa jaa ngi wër di rey nga bëgg a jël xale bi yóbbu ko këram déggu leen wax bi de déggu leen ko maanaam kii day wër di rey nga bëgg a jël xale bi yóbbul ko ko allahu akbar ba pare xam nga lu yàlla wax yaayu Moussa inna la radduhu ilayki dinaa la ko delloo dinaa la ko delloo def ko ci dex xoolal dex noo ci defee liir dex teg ko ci kees nga teg ko ci dex gi waxul sax jox ko nit dana dem ba ci firawna firawna jël ko yar ko bu màggee daaneel ko te dinaa la ko delloo kon yàlla programme am it mënu ko tey ba moo lay wane alxuraan mooy dëgg yaay ji am doom jël xale bi def ko ci kees teg ko ci ndox mi daan ne sëram topp ko nga xool muy xool vague yi di ko yóbbu ba mu gis waa kër Firawna for xale bi te Firawna bu leen fàtte de am na programme de mooy lan dañuy rey xale yu góor yi mu ñëw xool mu nekk doom bu góor xam nga lu mu wax qurratu ayunin lii ay waay lii de sama fleur c'est fleur de mon cœur ku daan rey xoolam lu mu wax qurratu ayunin lii jaba ji ne ko nañ ko yar comme ñun amuñu doom bu màggee dinañu jëriñ kol fàtte ne xale bi commencé jooy ñu indi nit ñi ñu koy nàmpal ween wuñ ko jox mu bañ benn jigéen ne leen ah man de am na mère bu ma xam fii bu ngeen ko woowee xam na ñu dem jëli yaayu Moussa mu ñëw jox ko ween wi Moussa noppi mu génne ween wi ne da ngeen may fay ñu ne ko salaire ñaata mu wax lu seer ñu ne ko toogal lay loger sax ci palais bi gis nga yàlla bu la waxee chaque jour boo dëgg boo gëmee bu lay fay da lay wis mënoon nañ ko koo delloo rek ne ko waa jëlal nga yóbbu sa kër waaye ñu logé ko ci palais bi pare di ko fay salaire bu ñaa baango yàlla du morom ngëm yee des ngëm yi wallahi moo des mais affaire bi ba léegi mu ngi fi li fi nekkoon mosul changé mais ngëm yee des wallahi suñu gëmoon yàlla dëgg dëgg dëgg comme ni ko yonent yi gëme woon ak saxaaba yi kon weesu woon nañ fi mais maa saf de Sénégal dafa am ñaari agresseur dafa am agresseur boo xam ne lan lay jël am agresseur yoo xam ne iman la ñuy jël iman dañuy fexe sa xol yàlla du ci nekk te nit bu dindee ngëmum ci xolam moom mooy portable bu amul réseau ban njëriñ la am bu yeboon na nekk marque bu amul réseau ban njëriñ la am boo ci dugalee puce du am réseau kooku li muy cher cher li muy rafet li muy li muy li muy ban njëriñ la am mooy nit koo xam ne mu ngi nii ponkal la mu ngi nii ngand nangam nangam am na diplôme bu ne mais amul ngëm amul njëriñ loolu la ñu yàlla nattoo nag ñu am Sénégal ay njiit yu amul ngëm fi mu nekk nii Sénégal lan mooy seen problème problème mu milliard depuis jamono Abdou Diouf ba fii nu toog gouvernement bu ñëw ni audit milliard du ñu wax sax million milliard rek parce que xam nga lu tax ñu amul ngëm la ñuy fal mun demee rey nu fi mu nekk nii crise bi Sénégal lan la lu ñuy ut fan la gaa yóbbu milliards yi woo ñu sax million de milliard ñaata dix mille la mille millions fi mu nekk nii boo tàllaloon léegi nga ñu jox la milliard ngay teg billet dix mille di ko tàllal ñaata kilomètre lay dem ah ñaata kilomètre la ngay teg billet dix mille nii nga koy tegale nii muy tegaloo ngay ngay dem ñaata kilomètre la milliard bi di nekk ay nit waxuma ñu jël benn de mais nga dégg kuñ ñu kuñ ne ay ay la ci jël ay est-ce que ko am na ngëm ah daan la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax kullu maalin nabata ala xaraamin fannaaru awlaa bi benn waaye doon na dem ci tool de tool muy dox ni ba caag rek ndeysaan mu gis fruit bu rafet tàndarma bi tàndarma rek mu daal di dagg benn lekk mu lekk ba pare rek xelam ne ko ku la ko may yow de yowmal qiyaam lii lumbu deret la yow safar nga jëm imaanam mayu ko mu continuer tukki de day tourné ji dem dëkk ba laaj kan moom moom tool bi mu ñëw ñu ne ko borom tool bi fii la dëkk mu ñëw fëgg kooku ubbi mu ne ko dama dindi ci sa tool benn doom lekk ma doon ma doon jéggulu kooku ne ko mayuma la ko mayuma la ko saraxuma la ko te baaluma la ko ba yowmal qiyaamati mu ne ko kon ma tëdd fii dee parce que fii duma fi buuse lu dul nga baal ma ko du ma dem dajeeg yàlla mukk di yóbbaale àqu jàmbur bi kooku xamee ne dëgg la ci moom mu ne ko waa léegi am na charte pour ma may la ko mu ne ko waa waxal charte yi mu ne ko dama lay may doom joo xam ne dafa tëx dafa gumba dafa lafañ dafa muuma ba koy may nga yóbbu ko séyangu waa ji daal ne loolu moo gën a yomb ci yàlla may dugg safara dañ ma ko may allahu akbar ñu mel noonu ku leen dénk réew réew ma dina jub wala du jub ñoo xam duñ lekkal nit fistin xale bi daal dem wax yaayam ne ko léegi xaaral ma dem wax sama samay mbokk mbir mi dematul de fi mu doon dem ba dagg na ko léegi moom problème am mooy lii mu ñëw wax leen ñooñu ne ko ah léegi luy sa xalaat mu ne ñu ne ko lu gën a yomb mu ne jël jigéen bi moo gën dem safara ñu ne ko bismillah mariage bi jot ñu takk muur xale bi ñu indil ko ko guddi ñu ngi ko muur mu ngi toog moom mu ngi naafila ci si jaadaam ba sonn tëdd jot na mu ne ah waaw léegi comme may nañ ma ko sama soxna la kay mu ñëw muri mu gis muy xoole mu wax mu tontu ko jógal mu jóg taxaw mu ne ah moo man mu muuraat ko dem ci papaam ne ko yow da ngaa jaawale est-ce que indiloo rakkam mu ne ko lan la mu ne ko da nga ne ma woon ku muuma ku ku gumba ku tëx ku muuma ku lafañ mu ne amul benn mu ne waaw dafa muuma dafa gumba dafa tëx dafa lafañ mu ne déedéet wax naa man dégg na li ma ko wax doxloo naa ko mu ne kon yow déggoo dafa gumba du xool lu xaraam dafa tëx du déglu lu xaraam dafa lafañ du dem ko xaraam ma xam ne yow ni nga regale yàlla lekk benn tàndarma di wër ku la baal yow yaa kii rek yéen a mën a sëy jëkkër ju baax laa ko doon utal yow doy nga ma est-ce que am nañ ñu mel noonu tey ci xeet bi ah est-ce que dinañ ko amati est-ce que dinañ ko amati te loolu la suñu problème nag kon mbokki jullit yi suñu borom subhanahu wa taala nee na màndarga bi wane ne moom waa ji mooy buur seen kaw mooy waxande wi dikkal ko waxande woo xam ne dal moo ci nekk bu bàyyeekoo ci seen borom ak lenn lu des ci ay bagage yoo xam ne ñoñ ñoñ mooy aalu mooy ñoñ mooy famille moo ko bàyyi aala Moussa ak Haarun Moussa ak Haarun luñ bokk dégg waay léeg-léeg léeg-léeg nga gis benn waay bu la de yaayu Moussa nan la tudd yaayu Moussa xam ngeen luñ koy doyee njabar koo dégg muy laajte turu yaayu Moussa njabarkat la turu yaayu Moussa du xam ko du farata du sunna amul benn importance ci jullit jël turu yonent yi wala seeni yaay wala seeni baay di ci def ay liggéey wala ay njabar Sénégal bokk na ci li ko yàq mooy njabar gu metti njabar société boo dem kër goo dem këru liggéeykaay gouvernement bi kër diine yi njabarante gi gë- kenn gëmul yàlla Sénégal yàlla du def du dindi léeg-léeg sax nga benn waay ne la waa yow yow gis naa la yow doo takk doo doo doo ah yow dëkk bi wóorul boo bëriwul sax ñu bëri daanu sa kaw fii foog nga takk foog nga sangu foog nga naan xanaa xamuñu ne ku takk yàlla bàyyi la ak li nga takk ku takk yàlla bàyyi la ak moom jullit yàlla rek lay gëm yonent yàlla Muhammad lu mu takkoon yàlla moo ne ko wallahu yaasimuka min annas nga gis lu ne ñu dugg ci nag te gis nga boo duggee ci buntu boobu boo duggee ci buntu takk ak buntu xërëm mooy sa diine deñ na loolu moo tax jullit turu yonent yi war nga ko xam mais nag bul ko def bu ko utiliser pour njabar boo jiitalee araf bi boo mujjalee lële boo indeelee turu Moussa boo ko defee nii xoolal Moussa ay njabarkat la dajaloon mais yàlla jàngalu ko njabar yàlla kéemtaan la ko jox wax ko defal lii defal lële defal lële da ko ne yat wi rek boo demee ci njabarkat yi bu ñu sànnee seeni njabar sànnil yat wi njabarkat yi ba ñu sànnee Moussa sànni yetu Moussa wan njabarkat yi li ñu indi woon lan lañ wax amanna bi rabbi Moussa wa Haarun gëm nañ yàlla Moussa ak Haarun Firawna ne leen ah ñu ne ko kii lii du njabar parce que ñun xam nañ njabar lii du njabar njabar amul njëriñ te nag suñu dëkk bi loolu moo fi bëri booy liggéey foog nga sangu foog nga takk boo amee oto foog nga takk oto bi foog nga sangu ko booy tuxu sa kër foog nga takk kër gi foog nga sang kër gi waaw yow ci sa bopp doo xëy mukk dul nga sangu takk seere ba mu dëgër buñ la falee ministre foog nga sangu ji foog nga takk bu la defee imaam sax yenn saa yi nga ne xaaral ma dem dëkk ba ñëwaat imaam imaam lu muy wuti dëkk ba Casamance laa dem gis imam bu ñu yóbbu bois sacré Casamance laa dem gis imam bu ñu yóbbu bois sacré sangu ko une semaine doo ko indi samp ko ci jàmm ayna allah ana yàlla waaw dem nañ fa imam imam boo xam ne dafa am ak kenn problème dem ci jalan yi ñu ne ko foog nga indi sàngara ak mbaam xuux mu dem indi jikko ñëpp tere ko mu bañ wax nit ñi ne lii lañ ma laaj nit ñi ne ko loolu jullit du ko def bul dem de mu bañ mu jël ko di dem dee ci yoon safara la jëm parce que ci kufru la dee nit ñi xamuñu ne yooyu kufru la ak kéeféer la boo ko defee bu yeboo nga julli ba sonn booy dee da ngay dem safara parce que gëmoo yàlla njabar nga gëm yooyu jullit du ko def moo tax xam turu yaayu Moussa amul importance ci jullit surtout nag nga koy njabare saa yuñ la laajee turu yonent yàlla yaayu Moussa nu mu tudd xamal ki la ko laaj njabarkat la mu ne wa alu haarun nee na loolu waxande woowu yàlla wax leen ne lii moo ci nekk tahmiluhu dana ko yenu almalaikatu malaaka yi ñoo koy indi boroom xam-xam yi wax nañ ci ne malaaka yi nan lañ ko yenoo ñu ne ñu ngi ko jëlee ci ardul amaliqa foofu lañ koy jëlee ñu teg ko ci seen kanam yéen waa banu israil ci seeni xayma yi yenn boroom xam-xam yi ne déedéet dañuy jël dañoo jëli fa ko fañ ko dencoon la ko malaaka yi jële indi ko ba ci buntu dëkk bi daal di ko fay teg bu ngeen yeewoo fajar ngeen génn di ngeen gis waxande wi l'essentiel que li am importance mooy li yàlla wax yàlla dina leen indil waxande wi ay malaaka ñoo koy indi jeex na ndax dañ koy indi ci digg dëkk bi ndax dañ koy teg ci buntu dëkk bi ndax dañ koy dugal ca biir néeg ya yàlla daal nee na waxande wi pour yéen ngeen xam ne waa ji mooy buur seen kaw yàlla def na benn kéemtaan boo xam ne waxande wa ngeen moomoon ñu sàcc ko nangu ko ci yéen ay at te ay bagage Muusa nekkoon ci ak Haaruun waxande woowu yàlla dina leen ko delloosil ay malaaka la koy jox ñu indil leen ko preuve bi mu leer loolu kese la tahmiluhu almalaika su boobaa nag inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan kéemtaan lakum ñeel leen wallahi loolu nag yéen su ngeen ko gisee lan la leen war a jural yéen peuple banu Israël mooy ngeen jële ci kéemtaan pour ngeen gëm yàlla xam ne yàlla lu mu wax waxam du yenn du fanaan àll inna fi zalika nekk na ci loolu la aayatan kéemtaan lakum ñeel leen kéemtaan buy wane ne yàlla kenn la yonent bi mu yónni wax na leen dëgg ba mu leen tànnalee taalut kon war ngeen nangu ne taalut mooy seen yonent inna fi zalika nekk na ci loolu ngeen di gis di ko dégg yonent boobu di leen ko wax ne ci yàlla la bàyyee ko kéemtaan gu rëy moo ngi ci lakum ñeel leen waaye kañ in kuntum mu'minin bu fekkee bu fekkee in ci arab xarfu lan la alfa chart in mooy su fekkente ne gëm ngeen yàlla in in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen yàlla kon ñun bu fekkee gëm nañu yàlla lan lan war a def ñii bu fekkee gëm nañu yàlla lan lan war a def dañuy nangu léegi waa ji nekk seen yonent wala dañuy bañ dañuy nangu gis nga yàlla ci wa baatu tawakkul wa alallahi falyatawakkalu in kuntum muminin ci yàlla rek ngeen war a wakkiirlu bu fekkente ne gëm ngeen yàlla kon léegi yow boo gëmee yàlla ba pare wakkiirlu ci keneen est-ce que gëm nga in harfu charte la in kuntum muminin fekkee gëm ngeen yàlla kon yàlla rek na leen doy su fekkee gëm ngeen yàlla kon lii yàlla wax leen ne waa ji moo war a jiite mooy taaluut te Samwil wax leen ko te mu jox leen ay mandarga yu leer ne lii wane ne moom moo moom la yàlla tànn mooy waxande wu ngeen pertoon la leen yàlla di indil malaaka yi indi ko waxande wala ca nekk mooy bagage yi yeneen ti yàlla Muusa ak Haarun kon bu fekkee gëm ngeen yàlla day na ngeen wàkkirlu ci yàlla te nangu waxi yàlla subhanahu wa taala nee na fa kaanat aaya wa azamu ayatin wa qabila banu israil nee na mbir mi daal di am mu nekk kéemtaan gu rëy waa banu israil daal di koy nangu bi qiyaadati taalut ci njiital taalut bi yàlla tànn mu nekk seen buur nee na mbir mi daal di tàmbali nag wa bismillahi taala qaadahum nee na ci kattanu buur yàlla tabaraka wa taala la leen waa ji jiitee léegi nangu nañ jullit day nangu chaque jour su yàlla waxee wala yonent yàlla wax ak moom wala rawatina nag mu gis kéemtaanu yàlla ki gën a alku ci nit ñi mooy ki yàlla woon kéemtaan mu lànk bañ a gëm ku ko gën a alku kon mbokk jullit yi ci aaya bi la ñuy taxawalee dars bi ba samedi bii di ñëw bu dee am na njuumte ñu ngi koy jégglu suñu borom asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkente ne am na laaj